zawi ridwaani wa tamkin bokki jullit yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi leen di nuyu di leen ndokkeel di leen siyaara ci ndigalal ak kilifteefu sunu yaakaar àddina ak àllaaxira ki fi nekkal ci Ahmadu Bamba Cheikh Seydil Muxtaar Mbàkke ñu am liggéey bu rëy boo xam ne bii daf ko yëkkati teg ko ci loxo yi jëwrinam yu baax yooyu mu Cheikh Muhammadinil Muntaqa ak ashayeex muhammadin il bashir mu ànd ak ak bokkam yépp am ci liggéey boo xam ne nag dañ ko yëkkati teg ko ci loxoy sëriñ Cheikh Abdul Ahad Mbàkke Gaynde Fatma mi jiite cellule communication Grand de Touba mu yëkkati délégation bu mag bii jiital ci sëriñ Mouhamadou Mbàkke si ibnu Saïx Mouhamadinil Moustapha ibnu Saïx Malik Basin si mu ànd ko sëriñ Qaadi Jaxate di borom taxawaay bu yaatu ci lislaam ak yoonu murid mu bokkoon ci biir délégation bi itam sëriñ Fallou Galas la mu amoon tuuti ay teq rek ba insha allahu ñi ngi koy séentu liggéey boobu nag at yii yépp dañ cee jëwriñal sëriñ Mouhamadou Mbàkke si mii moom mu fab yitteem yépp du jëme ko ci ak taam ak lépp luy xalaatam ngir xam ne lu waaye gàtt gàtt gàttum xel xam ne si Ahmadu Bàmba yor na dara dara yi si Ahmadu Bàmba jooju nag dafa tax ba bépp liggéey buñ yëkkati ba teg ko ci sa loxo waratuloo am jàmm guddi waratuloo am jàmm bëccëg ni ko Seex Abdul Ahad Mbàkke nettalee woon muy kuréel boo xam ne ku nekk ak na mu koy jéggee ñenn ñi di ko tuddee ab karawaan jublu kilifa yi nag mooy xeeñtu jeexeeti Cheikh Ahmadou Bamba te waykat ba dafa wax ne tilka asaaruna tadullu baadana fansuru tilka aathaaruna tadullu alayna fanduru baadana ilal aathaari loolu mooy li yëkkati délégation bi mu def ko itam ngir feddali buumu kóllëre gu réy gi doxoon ci diggante Cheikh Ahmadou Bamba ak kilifa yi nga xam ne ñoom la seqaloon lislaam ji ci biir réew mi ak ci bitim réew ku xam walla mu xaw a xàmmee walla mu ràññee dana yëg ne jéego yi ñuy dox tey ak bànneex bu rëy bi ci nekk ak yomb gi mu yomb jamono bi ko si Ahmadu Bàmba di dox booba bu la nit ki doxe 100 dootoo gis ci jëmmam ci dara ngir ab gàjj bu ne tërës te boobu la si Ahmadu Bamba doon dox dox bu gën a yaatu bi nga xam ne moom lañ doon dox di di xeeñtu ay asaaram tey ci kaw kilifteef bu tedd googu moo tax mu daan wax ne lastu ajuulu filtimaasi maarifa kuntu nakiratan fa sirtu maarifa dellu ko baamu itam di wax ne wëndeelu bii may wëndeelu ci biir réew mi nga xam ne ñun ay 4x4 lañ yor ak ay mini bus yuñ climatisé te ren ji yaakaar naa ne moo ci suñu juróomi at te ba tey jeexalaguñ doxub Sëriñ Tuubaa boobu nga xam ne li ci gën a bari aw ngelaw mu la ko daan war def nañ ci juróomi at ci ren yoo xam ne ay 4 x lañuy war yu toll ci seeni état ak i minibus yu normal ren moo ci suñ juróomi at te insha allahu danañu dem ba at mi jeex te duñ jeexal fi si Ahmadu bàmba dem te moom aw ngelaw la waroon te àndul woon ak ku yàlla bind te booba ku la dox sa digganteeg téeméeri meetar rek gayndeek ñayak saafaandoog dogekat yeeg lu nekk mën na cee ñàkkee sa bakkan kon ñu xam ne li jeexit ci Ahmadu Bamba rek lay topp moo tax mu dëggal doxam boobee wax ne fa jultu baynal awliyaa wal ulamaa bi niyyati wa amali wa si Ahmadu Bamba moo wax ne wëndeelu gii may wëndeelu foo dem ci Fuuta ñu ne la fii de si Ahmadu Bamba ñëwoon na fi foo dem ci Saalum ñu ne la ñëwoon na fi foo dem ci Kajoor ñu ne la si Ahmadu bàmb ñëwoon na fi foo dem ca Bawal ñu si Ahmadu Bamba ñëwoon na fi ba Poroxaan mu dem fa ay yoon ba Dakar mu dem fa ay yoon ba Mauritanie mu dem fa ay yoon am ci yoon yoo xam ne yoonu coobarey boppam la woon ci biir wëndeelu bii te moom aw ngélimu waroon booba lay wax ne wëndilu bii mayu defkat defuma ko ngir bëgg a siiw defuma ko ngir bëgg daraja defuma ko ngir bëgg ñu xam ma dama nekk ci li ma war a nekk nekk ku kenn xamul ba sax ca loole ba suñu borom yëkkati ma ba mel ni ab jant rek waaye booba lenn lu dul ngërëmul yàlla yëkkatiwu ko woon moo tax mu leeral ko doxam bu rëy boobu mu doon dox te loolu alxuraan di wax ne wala tanqudul laymaana ba'da tawkiidiha loolu la kilifa yu baax yépp nekkee woon jéego yooyu Cheikh Sidil Muxtaar am xol bu rëy boobu ak yéene ju yaatu jooji borom yaatu gu mag goo gii ci Ahmadu Bamba donn gi mu ko donn ak wóotu gi mu ko wóotu yëg ne jokk gu yaatu gi si Ahmadu Bamba amoon am na yéene jokk ko mu liggéeyloo Cheikh Mouhamadul Mountakha mu liggéeyloo Cheikh Mouhamadul Bachir ñu sàkk ay ubbi liggéey boobu jiital dugal ci mboolem waa ko Cheikh Ahmadu Bamba yi ak seex yi kenn ku nekk di loxo di loxo sëriñ bi fi mu nekk luy benn la ca liggéey boobee ñu bëgg a fàttaliku nag lenn ci mbirum Cheikh Ahmadou Bamba buñ ci noppee danañu mënal mujjantal tuuti ci suñ diggante ak Cheikh Saalih Mbàkke insha allah xawma woon sax ne fii lay génnee leetar bii ñu bari am nañ ko lii ñuy gis Sëriñ Tuubaa ci boppam moo ko bind ci loxoom bu tedd boobee leetar bii lañuy jàngat insha allah du waxi faadilu si du waxi paateek sàmba si Ahmadu Bàmba ci boppam moo ko bindoon li taxoon sunu xel dajoon yëkkati ko feeñal ko itam jamono dafa bari am mbalit muñ yëkkati mu bari jëmale ko ci barab bu tedd nit ñu tedd te loola bu doon ci ñooñ àddina kese lépp lu aw nit bokk lu mel ni ab forage boo gisee ku yëkkati linjaan jëme ca bul ne man rëbina laa yor ba tax doo ca dugal sa kàddu bu linjaanee boo ko seetaanee ngir na yow rëbina ay rëbina nga yor bu linjaanee setadoo bi insha allahu mën naa ñëw ba ca sa rëbina yooyee kon kàddu yu yellut yi ñuy yëkkati muy mbalit moo xam ne kenn xamul fu mu jógee di ko jëme ci kilifa gu tedd googu yi ak aw ñooñam loolu moo waral ma indi woon leetar bii nga xam ne sëriñ Touba ci boppam moo ko bindoon waa jamono ak ñi nga xam ne dañoo réer ay mbiram leetar bi damay jàng yax bi luñ ci mën a déggee ñu déggee ko ci bu ñoppee dana leeral taxawaayu doomi Serigne Touba yi ak taxawaayu Cheikh Serigne Touba yim yaroon ak ba suñ jëmi jamonoy tey Serigne Touba moo bind leetar bi mi ngi wax ne. بسم الله الرحمن الرحيم إلى كل من لم يعلم بأمر كاتب هذه الحروف سلام لائق به أما بعد فإن كاتب هذه الحروف لم يظلم الله تبارك وتعالى walam yadlim rasulahu sallallahu taala alayhi wa sallam walam yuwajjih ila ahadin biawnillahi tabaraka wa taala wa bijaahi rasulihi sallallahu taala alayhi wa sallama baatilan mundu haqala hmm. mu ne kon fal yawma yuriidu an yunabbiha kulla man lam ya'lam bi amrihi tanbihan laa yakunu baadahu shakkun mu tàmbali wax ne allahu tabaraka wa taala rabbi man si ahmadu bamba mhm. wa sayyidina muhammadin sallallahu taala alayhi wa sallama nabiyyi wa rasuli wa wasilati ilallahi tabaraka wa taala wal qur'anu dalili wa hudaya wal islaamu diini wal kaabatu qiblati te lii wallaahu ala ma naqulu wakil lii mooy lettre bi nga xam ne si Ahmadu Bamba moo ko bind liñ ci mën a déggee da koo adressé képp koo xam ne kii dafa wax ne aji bind téere bi leetar bii mu ngi yëkkati nuyoo bi yell di ko jëmale ci képp koo xam ne kii yàlla dalaa may def nga am kumpa ci si Ahmadu Bamba Sëriñ Tuubaa mi ngi bind fab lettre bii di ko bind képp koo xam ne kii amuloo lenn ci xam-xam ci si amul bàmm nga xam ne danga am kumpaam mu ne mi ngi koy nuyu nuyu bi yàlla ci moom di wax ne fa inna faa bi ku ne xam ne faa u sababiya la inna xarfu tawkiid la kon ku ne xam ne li bëgg a wax ñor na ko mu wax ne fa ba kaatiba haadihi l-xuruufi naka aji wóor la ne aji bind xaraf yii bi Cheikh Ahmadou Bamba di abdullahi wa xadimu rasulihi lam yaslimillaha tabaraka wa taala moom day mus tooñ boromam tabaraka wa taala walam yaslim rasulahu sallallahu taala alayhi wa sallam mës la tooñ yónnente bi sallallahu taala alayhi wa sallam du ci saahir du ci baatin du ci tooñ gu ndaw du ci tooñ gu mag moo tax mu wax ne lam yanxuni zajrun wala waidu bul ko defati ak lu tax nga def ko si Ahmadu Bamba nee na mosuñu ma koo wax diiru sama juróom-ñaar fukki at yi mosuñu maa wax lu tax nga def nangam mosuñu maa wax bul defati nangam moo tax mu wax ne wala am yaslim rasulahu sallallahu taala alayhi sallam mu teg ca ne walam yuwajjih ila ahadin bi awnillahi tabaraka wa taala wa bi jaahi rasulihi sallallahu taala alayhi wa sallam baatilan mundu haqala mu ne diiru bi mu xàmmee ak léegi moom si Ahmadu Bamba mos la yëkkati lenn lu ñaaw di ko jëmale ci benn mbindéef mhm. du mala sax waxuma la ak nit diiru bi mu xàmmee ba bi muy bind leetar bii mos la yëkkati benn ñaaw di ko jëmale ci menn mbindéef du nit du jinne du malaaka du mala mu ne nag fal yawma yuridu an yunabbiha kulla man lam ya'lam bi amrihi tanbihan la yakunu baadahu shakkun mu ne bis tey li tax bis ni tey am na pas-pas ak yéene fas yéenaa bind bëgg a leeral yee képp koo xam ne kii yàlla def na nga amu xam-xam ci si amul bàmma nga am kumpaam ci moom dëkkale ko ci néeg dëkkul yaakaare ku dul noona jëmale ci moom yu dul noona mu ne mi ngi xam la ne moom day yàlla mi nga xam ne moo bind asamaan yi juróom-ñaar bind suuf yi juróom-ñaar bind àddina ak alaaxira ak li ci seen biir buur boobu laa wax waaye waxuma buur buy dem ak a dikk di takki soxna ak i dund ak faatu ñu koy tuddee buur waxut ñooñu mu ne buur boobu moom laa def muy sama burum mooy sama borom tabaaraka wa muy yàlla mu def yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muy ab yonentam di ab nabiyoom di kerkaraanam ci diggam ak boroomam mu def alquran muy ab tegtalam di ak njubam mu def lislaam muy diineem mu def kaamatullaahi muy ak jubloom kii mooy Cheikh Ahmadou Bamba mu dëkk fan moog mursaloon yi ñoo bokk benn dëkk maa la ko wax Cheikh Ahmadou Bamba ak mursaloon yeeg lanbiya u yeeg sohada u yi ñoo kër fan mooy seen kër ba tey Cheikh Bamba mooy bind di wax ne man araada ay yaskuna maskanan laa yantaqilu minhu illa ila aljannati fal yaskun fi awamirillahi aljamil allati hiya maskanul xadim man sakana fiha sakana ma'i wala yufaariquni hatta yufaariquha wal yantaqil min nawaahil laahil jalil lii ki mooy si Ahmad Bamba fii la dëkk nee na Bamba nee mi ngi di wane ne ko koo xam ne kii bëgg ngaa moom fii ci àddina bu alaaxira ngeen bokk dëkk ca biir àjjana moog lan bi yaw ya nanga dem ba ci ndigali borom yi nga sanc fa dëkk fa ndax mooy sama kër te feek tuxuwul ci ndigali suñu borom yi mi ngi sax dak dëkk man si Ahmadou bàmba te dëkkandoo googu dara mënu koo dindi lu dul mu gental ndigali suñu borom yi dem ca safaan ba kii mooy si Ahmadou Bamba kon loolu lañ ci bëggoon a leeral tuuti ba tax na kon mu yërëm nag lool ñiy yëkkati ay ñaawteef di ko jéeme jëmee ci jëmmam ji wala ñu di ko jëmale ci yoon wi wala ñu di ko jëmale ci askan wi te loolu ku nekk mi ngi ko xam mu wax ne lam yaxfa kawn ahl ahlu badrinil usud musaxsihiina li siwaa naxwil xasuud mu ne man am mani bi ma yasuu aw yadur walam yatub fa du kaddin wadur lii mooy Cheikh Ahmadou Bamba may yi nga xam ne moom la yàlla jagleel nag foofu da see wax ne képp koo xam ne kii yëkkati na ay ñaawteef walla ay safaan wala ay ay lor jëmee ko ci man sama jëmm ji ci Ahmadou Bamba te yàlla dogalul mu tuub kooku mi ngi ci ay nattu ak i tiis ak i dund gu naqari àddina ak alaaxira te loolu lu borom dogal ci moom la kon murit yi nañ bàyyi xel ne borom dëj bi mën naa jooy ab dëjëm te lam bi la lam bi bukki day ak mbaam yàggatil ba mbaam daanu tey gënoon na fee metti de Cheikh Ahmadou Bamba mosu tubaab mosuñ koo peese mu mu mu weesu ñeen fukki kilo daf ko daan yées rek jëm suuf te 1995 biñ koy jël moom rek ñu jël ko moom rek ko matul ñeen fukki kilo ñu ne ko jël ne ko ñu ko cas ne ko meng moom rek juróom-ñaari at moo tax sëñ bi Rasuul si nee na benn bi sëriñ ba suñu borom tabaaraka wa taala daa wax sëriñ Tuubaa ne ko boo gisee sa digganteek tubaab yi yàgg te metti da ngeen sama ñaari ndaw yu ma gase boole su borom a ko jublu mu ne ko ñoom seen kaw gépp di iblisi yu yow sa biir gépp di malaki yu loolu waral seen xeex bi metti te yàgg loolu ku ko jël juróom-ñaari at delloo sil ko sa bopp gis naa foo xam ne fii moo ko bindal boppam merci la Sëñ Tuubaa jëfandikoo merce ñaari merci la ñaari day merci booba tubaab yi dañ ko dugal ci benn néeg tëj ko ak gaynde gi gaynde gi boobu ci kanamam ba yàlla def bi ñu ko ndoo gis ko ñu xebaar ko te du ñu loyu woon gaynde gi signé contrat ne duñ ko rey bi tubaab bi ñëwee ne kàccet bunt bi gaynde gi ne gaynde gi na tël kaadar bi fàddu ci lu bari gaañ ci lu bari te contrat bi tax mënuñu koo mënuñu koo feetal Cheikh Ahmadou daal di génn daal di koy woo mu ñëw mu jàpp ci nopp bi dugalaat ko ci biir néeg bi nekkoon moo ak Cheikh bàmba Bamba daal di delloo cadre bi daal di na ana kuy tëj fii capitaine bi daw xiil yu rëy ñëw daal di daal daal di tëj bunt bi ba noppi daal di gees Cheikh Ahmadou Bamba ne ko merci grand marabout yow daal Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sax yaa ko gën sëñ Tuubaa ne ko waxoo dëgg daal di koy gëdd sëñ Tuubaa daal di fa xësi merci boobu baat boobu yi daal di ciy tënk ñaari xësida maa nga ak moom sëñ Mouhamadul Kabir ka moo ma ko joxoon ñaari xësiday mers def ko juróom juróom benn bayit bu ci ne mu jël ko merci waaw jëmm ji tuuti noonu jëmm ji mel noonu nga jël ko juróom ñaari at mënuloo ko dara delloo si ko yóbbu ko ñeenti at gànnaar mënuloo ko dara delloo ko indi ko ci yéen juróomi at mënuloo ko dara yóbbu ko njaareem mu des résidence surveillée mën loo ko dara ba suñ jëmi jamonoy tey nga xam ne li si Ahmadou Bamba am Amérique donc buñ ko bëggoon indi ay avion ñoo koy jëli bu dee Italie ay avion koy jëli bu dee France koy jëli ba ci Arabie Saoudi ay avion ñoo koy jëli kon kooku ay biram passé na jant la bu fenk kenn mënu koo tee so loolu rek lañ ci doon wax bu fekkee nag dañoo ñëw ci liggéey bi nga xam ne nag mooy jokk bokk gi gi nga xam ne moom la ak feddali kóllëre gi gi sëriñ bi di sàmmlu te ko ci loxo yi Cheikh Mamadou Bachir mu ànd koog bokki sëriñ Touba yépp ànd kook seex sëriñ Touba yépp ku nekk nag na koy déggee waaye ku nekk xam na ne lii manees na see teg bët ne jeexiti sëriñ Touba ba agsi fii bi ñu dugg ci kër sëñ Saalihu Mbàkke gii ci Lagan ku xool mbooloo mi nga xam ne ay tuuti tànk lañ di yëkkati baatub yàlla boo xam ne bii sa yaram bi day daw dana la wóor cëng lii jeexit si Ahmadou Bamba dëgg dëgg dëgg si Ahmadou Bamba jeexit si ngi nii kon ku doon laaj lan la karawaan bi di dox na seetaan image yi bu dee doyul ko ku gis xasida yi fi doon yëkkati ba ci ku gis alquran ji nga xam ne suñu mbokk mi doon na ko jàng ci di wax inna laha astara minal muminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannata yuqaatiluuna fi sabilillahi fa yaqtuluuna wa yuqtaluuna waadan alayhi xaqan fi tawraati wal wa wal quraan yi waaye la mu ca teg nag mooy tegtal na buntu suñu boroom du tëje wa man awfaa bi ahdihi minallaahi loolu ba tey suñu jëmi jamono jii kuréel bii ci loolu la nekk ñu ngi ci biir Cheikh Sidil Muxtaar muy bokk ci ñi nga xam ne wa man awfa bi ahdihi minallaahi mooy li tax a jóg liggéey bi feddali kóllëre suñu borom gi si Ahmadu Bamba sosoon ak ñim seqaloon réew mi ak lim seqoon ak alquran ak lim seqoon ak lislaam ak lim seqoon xeetu yonent bi si Ahmadu Bamba ci ndar bi mu demee bay jubbiro bi moo nettali ne alquran dañ koo njatamal mu daw ñëw laa si ci ginnaawam ñu ñettamal xeetu yonent bi mu ñu daw mu daw ñëw daa xusi ci ginnaawam ñu ñettamal lislaam mu daw ñëw daa xusi ci ginnaawam mu bind wax ne farra liyal kitaabu wal islaamu wa ummatul maahi fala ulaamu alxuraan day daw na xel ñëw daa xusi sama ginnaaw lislaam daw xel ñëw daa xusi sama ginnaaw xeetu yonent daw xil ñëw laa ko sama ginnaaw waaye du seen yaakaar de te kenn duma ma yedd ci ni nga ni nga def alquran wala ni nga def xeet wi wala ni nga def ni nga def ni nga def lislaam moo tax si Abibu Rasul di wax ne setub Sëriñ Tuubaa lu daagu daagu kenn du naa naa ma tax malaago yóbbaaliwul kenn ci xare bi setub Sëriñ Tuubaa lu daago daago kenn du ko naa samaama tax malaago yóbbaaliwul kenn ci xare bi kenn ku laago te si Ahmadu Bamba tax nga ànd ak moom di xeex ba laago si Ahmadu Bamba bokkul ci kuréel boobu mu wax ne ñett yooyu liggéey na ci ba àdduna bi teg seen bët ku ko mos a doon mooy sa yitte génnoon ñett yooyu alquran lislaam xeet wi mu wax ne vaasal kitaabu wal xadiisu wal ulum an naafiaatu bii wa kaana lil alim ku nekk xam na ko mu ne mu ne alquran ci boppam a xeeti xam-xami diine yi fu noonu yépp seen xol sedd na guy ci man liñ bëggoon lépp balaa ko ci man am nañu te loolu ku nekk xam na daara si saalix ji fii ñu nekk ci lagan ni mu demee ñu bañ a guddal ñi wuuti si Ahmad Bamba yépp ci ñett yooyu rek lañ tënk seenu liggéey lislaam xeet wi alquran cheikh Mouhamadul Moustapha cheikh Mouhamadul Fadil ku nekk bindal na si Ahmad Bamba ñeen fukki kaamil yu leer nañ te ñun ñi kenn ku ci nekk bu ko cheikh Sidi Moxtaan doon jàngaloo ñeen fukki kaamil say bokk danañu la gëj gis lool bu fekkee ne fas nga ko yéene jàng man daaw doon naa jéem a barkeeloo fukki kaamil ak ñaar ci ci màggal gi waaye xaw naa maa xam ne nekkati yoo te loolu kenn mosul xam lu mu doon. moo tax loo soxla ci lu baax bul génn bul génn yoonu murit bul sore it ñëwal ci doomi si ahmad bamba yi ba génn ba nopp door dem ci ñim yar moo tax may wax ne asaxihayni ci si ahmadu bàmba ñaar la Sëñ Tuubaa am na ni ñaar lañ mooy kum jur ak kum yar luñ lay wax wér na asaxihayni mooy si ahmadu bamba ku si ahmadu bamba meññi ak kum yar ñooñu ñooy asaxay xay ni lu ñu wax lu wér la lu ñu def lu wér la nuñ mel noona la am na it muttafaqun alayhi mooy si Ahmadu Bamba lu mu xas wax rek noona la deme moo tax mu wax ne karrama nii xayrul baraya bi kutubi bi xalami wallaahu yu'li kutubi lu yéeme ngi noonu mu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moo ma teralee ne ma bindal tagg ma bindal tagg ma te moom alxuraan su borom da ko wax ne wala taquttuhu bi yaminaka idan lartaabal mubtiloon moo tax ba nit bu bañee dëgg dëgg dëgg xol ba du leer nga dégg ca ginnaaw ñu wax ne daara ju amul daa barke du ca juddoo daara ju amul daa cheikh yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko njëkk a daara ju amul daa yonent bi ko njëkk a daara yëpp mi ngi jóge ci daara yonent bi te amul ku yàlla bind ku xam ne boo bindalee yonent bi sax du ko xam alquran moo interdit yonent bi bind wala la ko wax daara ju amul daa barke di ci juddoo dañoo fàtte woon daara yonent bi moo ne amul woon daa de te sina Abubakar la jógee sina Omar sina Ousmane Zayd ibnu Saabit mi nga xam ne moo doon bind alquran fukk lañ ak ñaar loolu kon daara ju amul daa mi ngi noonu si niñ gisee si Ahmadu Bamba ñoom te lu yaatoo ngi noonu loolu kon ci liñ bëggoon a leeral rek tuuti ci suñu digganteeg sëriñ bi waaye noonu rekk la ni ma waxoon ne loo soxla kaamil bii sëñ Mouhamadou Mbacke si mii jataay bii jataay bii lu yéeme la jataay bii lu yéeme la kaamil bii sëñ Saalihu Mbacke radiyallahu anhu moo ko bindloo woon ci teewaayu sëñ Modou Mbacke si mii bi mu matee ci daaru rahmaan gii ci xel koom weeru koor mu ne fut liggéey bi toll na ko wax Saalihu si mii mu wax ma ko ba mu yeggee man ak sëñ Saalihu si ak sëñ Mouhamadou Mbacke si mii ñu ànd ba ca sëñ ba kaamil baa ngi nii sëñ saalihu bind na ci mujj ga ku ko xool dana ko gis bañ demee sëñ Modou ngi nii toog mu wax ne am na diw sàngam doon naa ko mool loo kaamil sàngam lañ ci mool nañ ko bàyyi te lañ ci mool lépp ñu moolal ma ko ci kaamilu fàllu si bii nañ ma ci moolal kaamil moolal ma ci yaasina suuf moolal ma ci xaddi same ak suuf waaye am mati am ma yete bi du mat a mool ndax day tuuti kon jataay bi jataay bu yéeme la keroog bi mu ciy signé bi mu ci def loxoom xut bu samaan dëgg la Cheikh Saalih xut bu samaan dëgg la Cheikh Ahmad Bamba dëgg ci saahir ak ci baatin dafa jublu penk sëñ Moodu sa ko ma nga fa woon daal di jël bindukaay bi maa nga ko denc ba tey daal di téen ab diir daal di sëgg bind ca bayir woo xam ne wii ba fi may wax ak yow kenn taseegu lëg fa mu nekk ci xasida yi man mii taseegu ma ak moom fu nekk ci xasida yi te tolluwaay boobee si Ahmadu Bamba tolloon ba yox wax ja dafa xaw a niroog tolluwaayu moom Cheikh Saalihu Mbàkke dasaa bind ne sabbata lil sabbata lil yaqiinu war rusuuxu baanal yan naasixu wal mansuuxu kon gëstukat yépp maa ngi di ñaan buñ gisee bay bu xasida maa ngi di yàlla ko yalwaan lii la sëñ Saalihu Mbàkke bind sabbata lil yaqiinu war rusuuxu baana liya naasixu wal mansuuxu leer nañ ñi bi bi mu koy deflu moo tax ma ne la bi mu ma joxee ndigal li sëñ Modou mi ngi toog bindkati yoon wi dañ ci war a bàyyi waa xel jëggaan mi dafa bari ba tax loxo yu bari melatut nam meloon ci daari si Ahmadu Bamba jañ jañ rootee woon sëñ Asaa Si bi ma dama wax ne ma bind ñett sàrt la am kum daje ci moom mënees na ko wooyee bindkat kum dajewul ci moom mën nañ ko wooyee ndiidu daa mën a bind waaye bindkat moom faw mu dajale ñett sàrt gannaaw dañoo ñëw ci biir daara yi lagan ji nag faaw ñu waxtaane bind nag ñu jéggal ma ndax dafa mënul a ñàkk dañoo ci daara ji mooy da man yàpp man xaraf man tër da ngay man tër man xaraf man yeb tër mooy boo bindee bind wi ba mu yegg buñ fabee ak wëñ teg ko ci bind wi araf wi du yéeg ci kaw du wàcc ci suuf loolu mooy tër bu dee araf mooy boo sànnee ak nuunara du wàcc bay laal weneen bind wi ci suuf day jël day jël cëram te du jël cëru jàmbur daal du tooñ loolu mooy man xaraf man araf dëgg dëgg dëgg mooy araf wu nekk nekk fa mu war a nekk nuru war a doon loola mooy man araf man yab nag mooy mbind mi sakkan moo tax bi ma koy misaal bañ a génn yoonu murid bañ a sori ñëw ci doomi Serigne Touba dama caa jël ñett daal ni wax ne dangay man araf nis da ngay da ngay man tër ni Cheikh Mouhamadinil Moustapha donte dajale na ñett ya da man tër ni Cheikh Mouhamadinil Moustapha gëstukat yi nañ gëstu ji kamilam ba surtout kaamilam ba mu niróoleeg sëñ Faadilu Mbàkke booba ku ko dem da nga xam dëgg-dëgg mbind mbind dëgg la ca wane mu ne da ngay man da ngay man tër ni Cheikh Mouhamadinil Moustapha man yàpp ni Cheikh Mouhamadinil Faadil kaamilam bii tey di ñaar fukki fanweeri bind nag wala ñaar fukki juróom-ñett wala lu ko niru buñ la jox buñ la joxoon kayit wu ni toll ne la paas bii sotti ko ci kayit wii da am jafe-jafe lool mboola mu bari buñ ko doon examen dañuy daan buñ ko mën loolu mooy sakkan mbind da koy man ni Cheikh Mouhamadul Fadil waaye da mën araf ni Cheikh Souhaïbou Mbacké ku araf la ku xool dana ko xam xafara yaag yéeg ak wàcc ga day mel ni machine buy monté loolu kon tuuti mënutoon a ñàkk ñu waxtaanee ko ci li ko waral nag mooy liggéey bi sëriñ bi tegoon suñu loxo mu desaat beneen liggéey boo xam ne Cheikh Ahmadou Bamba noonu la daan binduloo alquran moom Cheikh Assa daf ne ma sëriñ Touba bu dee day bindulu kaamil day bëgg kaamil bi bu dee hisib nga di jël ñeenti baat bu dee rob bu dee sumun nga di jël benn baat bu dee nisif nga di jël ñetti baat wala genn wàllu bind nii mooy tër bi nga xam ne Cheikh Ahmadou Bamba moom la daan tërloo loolu kon it ci liggéey bii ci la bokk kon loolu bokk na ci yi nga xam ne liggéey la yoo xam ne sunu kilifa ki tedd ga Cheikh Salif Mbàkke ci liggéey mi mujj yi ci la bokk relation yoom nag ak doon gi mu doon Cheikh Ahmadou Bamba feeñal na ko ci alxuraan feeñal na ko ci lislaam ñim bokkal lislaam ji yëpp feeñal na ko waaye feeñal na ko cam ci diggam ak seexi sëriñ Tuubaa yi saa boo ñëwee ci kër sëñ bi ku ne dana dana ci bokk dégg nga sànq kilifa gi lim tudd sëñ Moustapha si bi muy ñëw fii di di di di di si lagan fàttali na ma xisa bu yéeme boo doxoon ci diggante sëñ Moustapha si ak sëñ Saalihu Mbàkke ci tukkeem bi mu njëkk a def te boobu ñoom ñaar ñu ngi woon kër sëñ Mouhamadou dem ci njaareem di jàng xam-xam sëñ Moussa si mu ne sëñ Saliou da koo da koo dama bëgg ñu ànd nga gunge ma ab tukki sëñ Moussa si dem tàggu sëñ Mouhamadou dem mu ne ko demal xanaa xam ne bu ñu soxla waan ñun ñëpp sax ñu dem sëñ Moussa si ca pas-pasam ba ñu ànd nee na ñu dem di dem ba tollu lagam ba tollu ba tollu mbuur boobu Cheikh Mamadou Moustapha mi ngi fi sëñ Saaliwu xool jaww ji mu neex ko lool mu xemmem ko lool mun ne ko sëñ Moustapha si fii de xemmem naa ko lool sëñ Moustapha si ci ak déggam si Ahmadou Bamba ak xam ne doom sëñ Tuubaa bëgg-bëggam ak may goo ko suñu borom may bi ko sëñ Saaliwu Mbàkke ne ko fii de xemmem naa ko lool mu ne ko may naa la mbuur ak li ko wër bañ demaatee ba ci ab jataay mu ne ko sama kër ga ci Touba day dafa xat lool ku nekk xam na ne kër sëñ Saalix ga miir boobu lii sëñ Blaatu ko moomoon lii sëñ Saalix noonu la demee woon tukki boobe sëñ Saalix wax sëñ Moustapha si ne ko man de sama kër ga ci Touba dafa xat lool si Moustapha si ne ko yàkkali naa la ko ba xaynu yàkkali naa la ko ba xaynu te booba ña nga ca daara ji di jàng xam-xam biñ ñibbisee ba ay jamono la ko sëñ Moussa Cheikh Mouhamadou Moussa Bassirou dox ci diggam ak doomi Sëriñ Tuubaa yi ba loola leer na mu war a leere bañ ñëwee ba njaareem sëñ Moustapha si sëñ Moustapha sëñ Saliou loxoom bi moo ñu ko daan nettali téye loxoom bi jàkkaarloo kër sëñ Tuubaa gi ci njaareem daane ko sëñ Moustapha bu fekkoonte ne bi ci borom kër gi di nekk la damay jàpp ci sa loxo bi ba yegg ci moom ne ko fajal ma aajoy kii mu ne ko faj na ko loolu lépp di ay jëflante yu yéeme yoo xam ne ku tedd gi def na ko jataay bi ñu cee sant yàlla rubama nga bëgg a waxtaane sëñ Tuubaa am loo xam ne dafa dal sa kaw yàlla bu jàpp ne dañuy wax ne diw boppam la fi nekkal déedéet waxtaan rek mooy indi waxtaan sëñ Mouhamadou Lamine a ngi nii sëñ Saalih Mbacke sëñ Khalil sëñ Saalih Mbacke bay sëñ Moor sëñ Maalik ba ba tey jii dañuy def at mu jot dañuy bay at yi ya ñuy bay dañ koy jox si Ahmadu Bamba ku ko fi nekkal biñ ko mujjee jox sëñ Saalix muy ñeenti téeméeri bëri koy pepp ak lu topp kilifa yi dem yëglu ko sëñ Mouhamadou dem mi newoon ci daara yi xam ngeen ko mooy xalifa bi léegi mooy xalifa sëñ Malick Bassine ak sëñ ah, Ibrahima Aada bañ ko ko yëgloo mu ne ko nañ ko defal cere ñoom ñi def sëñ Modou mii jëwrin mu teewoon ko sama loxo ak bokk ya cere yooyee bañ ci noppee juróom ñetti téeméeri saako yi cere la woon yoo xam ne benn bu ci nekk juróom fukki kilo cay nekk ak ak ñaar te saako yi it ñooy bokk benn couleur ba ñëpp ñu indil ko ko ci kër gi ci xay gi mu teg mu ne nañ ma tegal benn bi fii ci kanamam mu di ko xool keroog daf ñoo wax nañu nañ ko ko yóbbul lagan te kilifa yi toog bañ dem ba ñëw keroog bi ñu ñëw lagan ca mbooloo ma ca laa bokkoon sëriñ sëriñ xalil mii lañ ko tegoon ci loxoom. kon jataay bi loolu lépp ci ay asaar yi loolu rek ci la bokk maa ngi guddal di jégalu di yëg ne sëriñ bi eh, day géej moo tax waaye doo xam fooy tàmbalee doo xam fooy yem waaw mu ne cere ja mu ne cere ja bi ñu ko sëriñ bi digalee ñu jox ko ko na ngeen defal ma ko cere mu ne ñu defal ko ko cere ñu dellusiwaat ci kër gi ñu dellusiwaat ci kër gi bokk yépp toog bokk yépp toog mu jotal ndigal Cheikh Salih. ñu jotal mu jotal ndigal Cheikh Salih. ñëpp nangu. ñëpp nangu. keroog yow mii laa def jëwriñ. keroog nee na man la def jëwriñ ji. ne cere ji. ne def ko ne sa bakkan bi. def ko ne sama bi. sëñ Modou danaa la ci nettali loo xam ne tey laa ko door a nettali. daa fekkoon bi sëñ Modou ne nañ ko def jëwriñ ji ñu def ma jëwriñ ji jamono boobu fekk sama passeport bi maa ko dugal ca ca. Eh, ambas ambassade ba maa ngi ko dugal ci ambassade ba ngir bëggoon a bëggoon a ñaan visa ngir tukki bi ma joxee jëwriñ ji nii ba jotaay ba jeex damaa rocc ko dem récupérer ji sama sama passeport ba tey jii tukkee gu ma waaw ngir ndigal li sant nañ suñu borom lool rek di sant suñu mood di sant ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatulahi wa barakaatu. يا قدير كما jërëjëf وجهت لله حمدا وكرمني المصطفى وبه لجاد بالأمن وجهت لله حمدا وكرمني من مصطفى وبه لجاد بالأمن إن رسول ما ند من زيوف الله سلمنني نجا رسول الذي ما من له بصر من يبي فتح مورود ندى فزود ندى بيداي قاذفة عني سلاما ودر بقل القلب كالبنني كتاب سنني عن كل مفسدة وكف عني أذى كما ما أذنني يبان أن الكتاب الله ليس لهم مثل ولي قنفه غزول بالأسن علمي مديني وأهدي به سلوى أنبئها لازم وزني لمصطفى اندرى من ناس مرتبة دل مراتبها لزيد والمغني الله فضل حلما وجلله ولا يكون له مثل ولم يكن خدمت غير الورى في البر خدمة من جزاء رب كريم وأنزل بكني لقد نسمت الأداء من زلزو زمدا من قل واللهما زلوى لم يمني قتلت في البر زيدا وكبكبه خير الورى متبعى إذا به تبني علي من صلوات الله عجبا ولا لوسم من فازوا بلا درني شل النبي رسول الله زلني وبت عن الذي خلق القرن يا ربي سلم سالم على سندي ولا لوزنبها سلام لوزمني ربي بما يراه كلا يا مالك الملك يا من جاء ak gàddu ñaan yu tukkee ci sëriñ Cheikh mu sëriñ Saliou ndax mi ngi ànd ak ñun ci jataay bi ci xolam ak noppam ak jëfam kon ci turam lañuy sante mbooleem ñi teew kii dafa wax ne léegi karawaan bi liy yitteem mooy gëstu jeexit sëriñ Tuubaa jeexit dañ ko mënta ñàkk gëstu ndax ña fekkewut am fuñ mën a teg seen tànk te fi ne jamono toll na foo xam ne ñi naan la kaay teg sa tànk fii te du fa daa bari kon yéen a ngi ci liggéey bu neex Serigne Touba. fexe ba nit ñi xam sëriñ Touba mooy kan ak lam doon dund mooy lan ak lam doon dund lu mooy lan mooy seen jotaay bi loola ñépp la war waxtu wu ne it warees na koo taxawe ndax maas gi ñëw ci ginnaaw am ay sukkandikukaay ñu mën a jóg gi seeni tànk mhm. ndax jotaay bii kat lu lu lu lu mat a yéeme sëriñ Touba la lu mat a yéeme sëriñ Touba la ndax sëriñ Touba daraam dadul ay caaxaan mhm. daraam duy neen mm, boo gisee jataay bi gis jataay ba la ko sosoon bi sëriñ Saalihu di sañ ci daara ji mhm. da yéemaat yàlla da xam ne ndekete waa ju baax ay jëfam tabaarakallah làmbatuwuñ ñoom te it wallasina amanu mm. wa tabaathum suriyatuhum bi imanin alxaqnaa bihim suriyatihim wa ma alatnaahum min amalihim min shay kon xeñtu ak wut ay jeexit lu wér la ndax nit ki mën a xeñtu ba fa ay baayam ak i maamam tegoon ay tànkam ñu di ko fa teg seen xeñtu bi mooy seen tànk yi ndax ku ne xam na ne yow sa waajur bokk na ci ñu gi nga sëriñ bi ci sanc barab bii nga dellu siwaat tey toog loolu lu yéeme la sëriñ xaadimee nga xam ne foo ko gis jàppal ne mooy alxuraan dem jëflanteeg sëñ Saaliwu ci alxuraan lu bari nag lu ma xam lu muy nëbb moom kon bu delsee ci jataay bii da xam ne la fa newoon dara jógu fi sëriñ Touba ngi fi ba tey doomi sëriñ Touba yi it mësuñoo dañ di ay làmp di ay jant yoo xam ne koo ci roy danga nga gindiku hmm. kon loolu nañ ko bàyyi xel hmm. sëriñ Fallou dafa wax léegi ne hmm. ñaar saxiix lañ ci sëñ Touba mooy kum jur ak kum yar kon ñooñu nga xam ne ñooy sunuy royukaay ci sëriñ bi ñoom lañu war ne dann te bañ a lu keneen kuy wax lu yees nun lu yees sunu yoon newu ci mm-hmm. sëriñ Touba rek lañ am te sëriñ Touba du màggat mm-hmm. doomi sëriñ Touba yi rek lañ am te duñu màggat lu yees sunu yoon newu ca démb rek noonu lañ war a xool te dox mm-hmm. yal na dimbali ba ñu am bëti xool démb am pas-pasu nangoo roy te am taw tawfiixi jariñu nag yal na nu sëriñ Touba boole dimbali noo ngi sant ñépp mooy taskati xibaar yi ngeen àndal te ñuy ay ñey xare ci toolub sëriñ bi ndax lii kat buñ duggoon suñu néeg di ko déyante noonu képp koy dégg waaye ñoom seenu njàmbaar ak bëgg sëriñ bi yaatu moo waral seen coono yi ba àdduna bépp di ko dégg kon noo ngi leen di ñaanal ñoom itam ci barkeb sëriñ Saalihu barkeb sëriñ Cheikh mu sëriñ Saalihu barkeb lagan bi nga xam ne sëriñ Touba dafa waxoon sëriñ Isaa Jenn ne ko demal lagan ma fekk la fa ak lëgën yal na nu sëriñ Touba boole lëgën yokku leen ci zahir ak ci baatin sëriñ baa ngi sant bu baax mbooleem njabootu sëñ Touba yi ñi nga ànd ak ñun ci jotaay bi rawatina njabootu sëñ Saalihu rawatina njabootu sëñ Cheikh ñu ci bare ngi may woone ñu ngi diglu waxtaan wi di ànd ak ñun ci xol ak i ñaan kon ñaan yooyu ñuy ñaan ko suñu borom nangu ñaan yi yàlla na ko sunu boroom nangu muy sëñ Sidi Muxtaar mat sëkk sëriñ Touba sunu boroom yàggal ko te wéral ko sëriñ Seexum sëriñ Saalihu mi mat sëkk sëriñ Saalihu sunu boroom yàggal ko te wéral ko ak njabootuk sëriñ Touba gépp nun dongo yi topp seen kaw di nab nabi it sëriñ Touba may nu wér ak tawfiix ak taysiir ci daraja Seexul Xadim ñoo ngi sant ñëpp di ñaanal ñëpp di ñaan sëriñ tubaa mu boole ñu ci kuréel ga nga xam ne dana nangu ñu liggéeyal ko tam leen di boppam te jariñoo pay ga assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu nangu ñaan tarkalla ci Cheikhul Khadim amin ci borom Tuuba ba mu yeesee ba léegi dara yeesaatul te lu yees moo ko yeesal kooku Cheikhul Khadim amin waaw amin amin Mbàkke amin amin rotuwa ngoog